Je donc man le professeur Bamba Je suis euh, ministre conseiller du cabinet euh, président de la République euh, nekk tamit responsable politique du ministère de li L'étude fi une journée de consultation gratuite Nous l'avons fait Nous depuis 10 ans C'est la 10 dixième édition de l'étude def man école ma fekk journée de consultation gratuite C'est la ci quartier bi fi laa juddoo école bi ci laa jànge euh, nekk euh, un pur produit de Guédiawaye damay koy wax tout le temps fii laa jàngee ci école bi jàngee collège Pikine Est jàngee lycée Seydina Limamou Laye avant may dem université Cheikh Anta Diop de Dakar doog a dem France jàngi ñëwaat yàlla def ma doon di faj yàlla def ma doon professeur agrégé à la faculté de médecine yàlla def depuis trois ans ma doon professeur titulaire des universités loolu moo tax euh, daraja boobu nga xam ne yàlla suñu borom rek moo ma ko may ndax du mérite du lenn ku yàlla jàppale la ndax su may waajur amuñu woon doole joo xamante ni mënoon nañu xalaat ne naa àgg ci àgg bi fa àgg nag li ma mën a delloo jukkal sama koñ ndax aw ma ñu dul ñu ndax man aw ma lu dul waa Géejawaay jukkal ma leen mën a delloo aw ma possibilité kër gu nekk ma dugg fa joxe fa junni wala ma joxe fa ñaar téeméer aw ma ko mais li ma mën rek mooy wan leen ne ñu ngi ci suma xol. def ci suma ñàkk bopp ak quelques partenaires yoo xamante ne nii ñoom ñoo ma jàppale euh, mu doon loo xamante ne nii lu laaj ay moyens la mooy yoo xam ne xëy na aw ko mais ak bu jot comme li ñuy wax rek ma miraas sama bopp defal leen ko te ñoom jaral nañ ma ko lépp loo xamante ne am naa ko dama ñëw partagé ko àddu ak waa Géejawaay te du doon loo xam ne damay xaar rek ba soxla leen def ko fi ma dëkk fii laa dëkk bis bu yàlla sàkk nit ñi ñëw fekk ma sa ku ci am problème boo ma ko diisee su ma ko mënee faj ma ko wàllu santé ndax ci loolu la sama xam-xam màcc donc loolu moom moo war a tey alors feebar yi ñu fi gën a saytu bokk na ci hypertension artérielle mooy tension bokk na ci diabète ñaar yooyu lañ ci gën a euh, saytu xale yi aussi gis nañ ci xale yoo xam ne am nañ ay picc seen biir di daw wala ñenn ñi am nañ siburu mais siburu bu bari mais diabète moom bari na fi loolu ndaxte Sénégal dañuy faral di wax ne ci diabète téeméeri nit yoo jël daanaka biti la ñuy wax ne ñoo am diabète muy chiffre yoo xam ne moo xaw a officiel Sénégal mais tey dañoo gis ne nit ñi nga xam ne am nañu ñeent fukki at jëm kaw ñu leen di xool depuis suba léegi téeméer boo jël presque fanweer yi am nañu mu doon loo xamante ne nii tamit jar nañu waxaat ak doomu aadama yi informer leen ci feebar boobu noonu ngir ñu mën koo gën a fàttaliku

ku am xaalis rek moom mooy diabète mais tey gis nañ ni ñi ñi ëpp ci ñi diabète sax amuñu donc effectivement loolu am na mais xam nañ ne président euh, xelam ak xalaatam euh, bokk na ci ay objectif am ba santé doon loo xam ne lu accessible la ci population yi te am nañ yaakaar ne loolu dina mën a saafara bon Bamba Kane euh, damay wax ne que man sama sama jëmm amul solo ci élection bi ñu nekk nii ndax élection bi ñu nekk nii kenn moo soxla muy président Macky Sall euh, man ma koy liggéeyal euh, géejawaay def ba mu mën ndax jox nañ ba sama gëdd wala jox ñu ma sama gëdd loolu nit ñi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko war a ñoom ñoo koy wax li am ba am mooy li yàlla dogal ci kàttanam mooy que géejawaay ba mu daj man kese Bambacar maa fi ministre de la république donc yaakaaroon naa ni au mooy comité électoral bu ñu koy def à l'échelle dina am cër bu ñu ma ci jox ku ne gis nañu daanaka cëra luñu ma ci commune bi ma dëkk sax commune bi cëra luñu ma ci commune ci ci comité électoral boobu noonu mu metti trop trop trop nit ñi nga xam ne ànd nañoo man nga xam ne euh, naqari na leen waxuma leen nag yeneen détails yoo xam ne du ma ci dugg démb ku ne gis na li xew euh, ñu def meeting boo xam ne ne commune bi nga xam ne si laa dëkk ndax école bi ñu dëkk nii même ba may nekk opposition maa fi mës a gañe école bi kenn mësuma fi géejawaay xam nañ lan mooy sama dayo géejawaay ñu organisé dem meeting bu rëy ci commune Sam Notaire joxuñu ma sax parole mais loolu metti nañu ma àndaloon mais loolu dama leen di wax ne bu mu leen metti euh, nañu xam ne président moo soxla leen nag am na am na loo xamee ne euh, mënut wéy parce que ku ma xam Bamba xam ne man ci yar lañ ma teg ci dégg ndigal ci topp kilifteef kilifteef yi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu nekk fii nii ci parti bi jiite dama leen jox seen cër mais ñoom dañ dañ am pour jox ma cër ndax euh, olof yi dañuy faral di wax ne euh, xëy na koo xamul ee nga koy wooyee man politique moo mën a booleeg ñenn ñu nekk man docteur la professeur agrégé la des universités nekk faculté de médecine di fa jàngale nekk professeur tutelaire des universités donc man bu ma politiqueul sax jàpp naa ni am na cër boo xam ne war nañ ko ma jox ñi ma joxul cër nag euh, ñoom dama triste pour ñoom man mettiwu ndax dama jàpp ne yow bu fekkente ne da nga xam lan mooy république xam lan mooy ministre de la bu ñëwee boo ko joxul cër yow manqué ceeb cër ministre ba yow yaa manqué sa bopp cër noonu laa ko jàppee léegi nag li am ba am mooy euh, lenn mooy objectif bi encore une fois nañu fàtte calendrier yi parce que élection présidentielle li ma ci gis mooy am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi déroulé seen seen seen seen calendrier mu ngi xalaat mairie yi war a am après loolu nag euh, nekkul lu gën nekkul lu gën te bu ñuy caaxaan nañu liggéey ndax buñu élection n'est jamais gagné d'avance nañu te xam ne benn objectif moo ñu war a yëngal benn objectif la ñu war a am mooy lan mooy élire euh, président de la mais acte yi ma gis ñu koy posé Guédiawaye acte ñu doy waan loolu moom ñu ngi koy méttee du mais xam ne aussi terrain politique moo demee noonu ñun yàgguñu ci politique mais xam nañu lan la ñu représenté fii nii ci Guédiawaye te loolu moom moo am solo ci kanam